Euh, contrairement à ce que dit monsieur le ministre je ne pense pas que Macky Sall ait entendu les Sénégalais et je ne pense pas que ni mos na leen dégg. depuis qu'il est là depuis qu'il tu sais Macky Sall c'est le premier président de la République du Sénégal boo xam ne mun nañ waat ne dugg na car rapide. Mhm. Senghor je ne pense pas que mos na dugg car rapide Abdoulaye Wade. waxi nopp Abdou Diouf c'était un bourgeois Macky Sall c'est sur que dugg na car rapide je pense que bépp sénégalais même ku ko jegewul war na ko yaakaar man daf ma wóor parce que dama ko xam depuis 1985 donc boo duggee car rapide Sénégal war nga xam lan mooy sénégalais. Et la question fondamentale que je me pose mooy à partir de quel moment le Macky Sall élu par des Sénégalais pense que pouvoir bi ñu ko jox moom moo ko moom ba naan Sénégalais yi bu ngeen defee lii ma def lii monsieur le ministre daf ne képp ku xam Macky Sall xam na ne que Macky Sall a le Sénégal ci biir xolam dafa am Sénégal ci biir xolam ba bind livre bu tudd le Sénégal au cœur. à la page 165 du Sénégal au cœur ma liiral leen ko il dit pour conclure et me voici de nouveau devant vous en vue de solliciter votre confiance pour un second et dernier mandat tout ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal est dû à deux personnes fondamentalement le premier c'est le président Macky Sall le deuxième c'est Ousmane Sonko le premier le président Macky Sall parce qu'il nous met dans une situation de oui ni oui ni non et le deuxième Ousmane Sonko parce qu'il nous fait penser que il a un amalgame entre le troisième mandat et l'affaire Sweet Beauté il faut que les Sénégalais comprennent que les ah. <laughs> xew ci dëkk bi mhm. man personnellement bu ma doon pointer du doigt bu ma doon joxoñ président Macky Sall lay joxoñ ak Ousmane Sonko li xew premier juin ak 2 juin moom lay joxoñ président Macky Sall parce que bu fekkee ne moom dafa ne dafa am Sénégal ci biir xolam ba bind téere tuddee ko la Sénégal au cœur ba ci page 165 mu bind ci ne tey nag pour conclure maa ngi leen di wax ne damay dellu siwaat di sàkku ci yéen ngeen falaat ma beneen mandat su ma ñaareeli mandat mu nekk suma ma jéel tamit moom moo ko wax page 165 ci livre bi il y a 17 dans la presse 17 bu ngeen ko xoolee apparition du président de Macky Sall bu muy wax c'est son dernier mandat nit ñi ñu ngi naan man de ba barki démb dama ne woon Macky Sall bi ma xam. du mos a présenté wu waat. loolu laa gëm. nit ñi naan du ko wax parce que bu ko waxee Sénégal dootuñ liggéeyati. ma ne leen Amérique ñëpp xam nañ ne que deuxième mandat Barack Obama naru tool nekkati président administration américaine continue di liggéey lu tax administration Sénégal du continuer liggéey bu président Macky Sall waxee ne du ma nekkati candidat parce que moom moo politiser administration bi. moom moo def de telle sort que directeur nationaux yi ku ci deful politique ñu dàq la moom moo ne ku deful résultat doo fi dellu si administration ak politique waruñ leen boole.